combat Modou Lo Ama Baldé nan nga ko gisee en tant que sénégalais combat boo xamante ni benn face to face la am ba mu taxawee ba tay waaw ah, combat roya royal la combat boobu du yomb ku ci kuñ ci woo na la kii yaa mën wax nañ la loo xam ne xamuñ xamuñu ko combat la Modou ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal taw feex nga Ama tamit ñu ngi koy ñaanal jàmm ndax làmb làmb jooju boo xoolee ba ba ba saison bi tijjee ba léegi. làmb boobu yaakaar naa moo ci gën a rëy kon ñoom ñoo sauvé saison bi xam nga làmb jooju ëxlu làmb moo ko soxla te dafa bokk lii yéegal làmb te ñun wax dëgg yàlla ci làmb la ñuy dox ci la ñuy yëngu te ñun lépp lu yéegal làmb rek ñun ñu ngi si ñu ngi ci bëgg lig lu ko laay mi ko tëgg ah ñu ngi ko ciy ñaanal moom it wax dëgg yàlla ndax gis nañu yoonam nu mu méttee woon trop trop mais muy jaayante bu ko neexoon bàyyi ndax mun naa ne lig lu ko laay mooy fay làmb mais làmb amul lu mu koy lu mu koy fay yaa barki alxuraan mais day def te yàlla tax gis na tamit licencié yi mbëri lu mat dix mille mbëri kër goo dugg am na mbër xam mu taxaw di ñu jàppale te yàlla rek tax di ngi tamit ñu lay ñaanal yow nga am jàmm bu baax baax ak suñu grand maxu Mandela xam di nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw. boo andi boo andi woon Ama lan nga koy Ama hmm. naa la Ama Baldé mbër la. Modou ko dàq bëre ci li ma gis man. ci li nga gis ku ci xuloo yow doon mm-hmm. moo ko dàq bëre. Mm-hmm. Modou moo ko dàq xeex. Mm-hmm. mais Ama moo ko dàq daane. moo ko dàq. partagé nga wax ji de lii mooy lan Alboury wax ji dafa war a leer wax ji da koy leer ba mu leer duñ fi jugee leer yow lii la. Euh, ay wax kenn du ko dama dañ ba mu sës. dama ne la ay wax kenn du ko lekk. te dëgg mënut a rob paxu nopp di dugg ci paxu bakkan. li ma la wax nii loolu laa xam ci làmb ji. loolu laa gis quoi mais ñun Modou lañ dëkkal voilà te ñun suñu idole la dañ koy roy bu baax ci lépp ci lépp ndax wax dëgg yàlla parcelle bi fii ñu ngi yoo am roi des arènes te moom moo ko fi indi kon moom suñu fierté la yàlla na ko ci yàlla may ndam ba tey fi may taxaw ci mbëru Grand Médine yi nga xamante bi ni jot nañ fay poussé ku ci mel ni Brise de Mer Yékini Junior ku ci mel ni Pape Morlo ku ci mel ni Ndongolo dañuy xool bu ñuy doog a jóg coow bi da leen di topp mbooloo mi victoire yi bëri mais bu ñu demee ba ci kanam daal affaire day xaw a kiyaat ku ci mel ni Ndongo gis nga defet yi mu tegle ku ci mel ni Pape Mor gis nga ko ni mu mujjee ci mel ni Yékini Junior mu mel ne am nañ bëreet départ gaynde arrivé muus lañ ci gis est-ce que yaa ngi ciy ah, ñun ñu ngi jàng bu baax a baax a baax mais dama bëgg nga xam ne fii àddina la te tamit yàlla moo fi ne ku ci nekk li ñuy wax naan euh, li nga war a am jiitu na su juddu mm-hmm. peut làmb dafa bëri yoon làmb boo ci déparé di dem nii looy gën a dem yoon yi day ibbeeku nit ku ci nekk yow yaa xool yoon bala saf nga jaar fa yaa ngi dégg man la ma saf maa ngi koy def ñoom tamit la leen saf ñu ngi ci def ñoom wax dëgg yàlla ñoom ñoo may may xaalis ñoom lañ may may xaalis kon ñoom yàquñu seen bopp wax dëgg yàlla ku ci nekk yaa ngi ñii ñu ngi États-Unis ñii ku ci nekk réussir nga xama même bu leen làmb fayul réussir nañ kon ñooñu esaguñ samay idole lañu maa ngi topp seen ginnaaw di jaar yoon bi ñu jaar pour am li ñu am. lu raw li ñu am sax combat bi lan moo la ci gën a marqué loo xamante boo ko fàttali ko ay ree da lay jàpp wala loo fàttali. combat ban sa combat sama combat day am sama combat ba nga waxee tëgg ba ngay tàcc te tëggkat bi tëggul loolu mooy lan alburid mënoon mën bilaay ci ba son tëgg na ma trop ñun journaliste ñoo mujj di tëgg ah bilaay non yéen def leen neex mais waruñ maa war géwél yi man ñoom laa àndal que yow supporter Reug Reug nga dawan di fa tàcc euh, fa la bokk seen bokk séeréer la <laughs> mais mais mais ak nu mënti demee ñun ay élément temps lañu hmm. ñoom dañoo waroon a dégg fa ñuy waxee ndax nee naa leen tigri temps robinet temps te temps loolu yëpp ay xeetu temps la voilà kon kon ca temps ca temps bala ñoom duñ ma waroon a ànd ak man rek a ak ma mu ne mais man kaa wax de man ku ma tëggalul ma tëggal sama bopp ku daane lu ma daane waaw mais tamit luñ <laughs> en tout cas da a dégg ku ci mel ne Baye Balla Mbuub gis na gis naa gis la mu baax gis naa la mu baax kenn du moom Baye Balla du Mbaye yow eh, kii sama combat bi passé bàkk na lu bon waaw ma mere ko lool <laughs> Modou Anta mais sa sa fit bi sonal da am fit alors ça a été un plaisir de vous servir gis ngeen Albouri la ñu dalaloon ci seen émission gise ak gis nga saa su ne moom bu ñu ko invité day waxtaane lamb mais da kaf da ngay TikTok bi am na loo leen am na loo waxtaane Instagram bi am na loo waxtaane merci beaucoup di leen jox rendez-vous di nuyu sama collègue bi nga xamante ni moom laa dendal borom seen seen arène TV borom seen lamb TV di ko ñàkk ñaan merci beaucoup Abdou moo nekk si caméra bi montage bi Ousin moo nekk si présentation bi jaajëf ah, mooy borom borom reer yu neex yi waaw man jaakatu reer yi rek laay fréquenté ak waañ <laughs> man ci yooyu laay dox <laughs> man damaa ragal xiif xiif jàpp ma tey jii bu ma xiifee nii da xam ne kii xiif jàpp ko dama war di lekk ba suur waaw sëñ Abdourahmane tamit ah di ko di ko sant bu baax a baax gis nañ ñaan yi yegg si na sëñ Abdourahmane Guèye saw kooku sama jantal maara la ah sëñ Modou Guèye Kéemaan kooku ku ko xamul tamit dégg na ko doomi Samba Roxe Njóobeen bi ah waaw di sant Pape Jamil Sarr borom Soprim mm-hmm. kooku nee naa la kooku moom sama sama maara préféré la ndax dama koo bëgg ndax moom dalay ñaanal di la ñaagal imagine di la ñaagal mm-hmm. imagine nga ñëw mu jox la ne sangul diwul suulal jox la xaalis bari na la reeral xam nga loolu dafa am solo <laughs> sëñ sëñ ak sëñ Moustapha tamit xam nga moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na jaamam yàgg ñaan yëpp yegg si na waa caabi ji waa caabi ji ñoom it dañuy jàpp samay mbir bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñoom kër dañuy jaay ak ay terrain kër gu pare loo am am kër loo am am terrain ah di di nuyu DG bi abu Thiam waaw ah, ah, waaw waa Grand Médine tamit di mafia yi mafia Grand Médine yi ku ci mel ni sama papa Baye Pël waaw mafia baale treize bi ñoom Petit ñoom Tafa Maada xam nga gaa waa mbaar mi waa café gi xam nga gaa waa Piyol bi xam nga gars wax dëgg yàlla gis nañu taxawaay bi gis nañ convoi bi barki Seydina Mohamed ba may génn stade li taxaw ñu nekkoon li génn Grand Médine man damaa waaru ñëw stade occupé stade bi yëpp wax dëgg yàlla xam nga ñun loolu rek lañ doon jooy de mbooloo bu njëkk dama naan mbër tëgal ma naan promoteur tëgal ma làmb nga naan ma ay amoo amoo mbooloo <laughs> léegi nam ma loolu <laughs> léegi ñëpp ñëpp man lañ bëgg waaw waa parking tamit waa ISRA deux roues yi bilaay deux roues yi xoolal naaxu deux roues ay convoi bu neex waaw ñu dem ba ñu ñibbisi tamit convoi bi neex waaw di ñaan yàlla ndam dafa neex moo doon anta ndam dafa neex de ndam ak ak ak ak ndam kaa wax la ñaari laa gën bëgg ndam ak ak salaatu xayru mel noonu félicitation ak félicitation ak kii ndam ak lem ak ak ak ala ak allahuma la ko sumtu donc ba ngoon jot ñu ne allahuma la ko sumtu loolu dara dàq ko ci réew mi waaw loolu loolu dama ko bëgg man bëgg naa mayga bëgg naa jigéen bëgg naa ndam. mais ban moo ci dàqal ban mooy numéro bi ndam moo nekk ci sama kanam. ndam mooy numéro un. naa loolu. ah soo moom wax dëgg yàlla champion la ñu ngi koy ñaanal bu amaatee combat yàlla na ko ci yàlla defal ndam ndax moom wax dëgg yàlla mbëru askan wi la te dafa yaru de. Hmm. yàlla xam na ne jour dafa yaru danga koy tiim nii xamal fa régler noppi ñàkk problème ba du toj ka dafa ah, lan <laughs> waaw waaw waaw <laughs> mais est-ce fas léegi yàlla na la yàlla mooy oto bu rafet waaw nga teral say waajur ah. so waaye bu dugg si loolu léegi sama mbër nga <laughs> waaw